Thank you. saay salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum di la wax ngeen continuer di abonné si seen youtube Diaw américain borom américain business tey dañuy ñëw jàngat bi ci nga xamante ne moo di Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye démb jàkkaarloo woon nañu ko juge bi fële nga xamante ne moom moo di tribunal palais de justice coow li nag bëri woon na fa gis nañ xëxante bi ci diggante Ndeye Khady Ndiaye ak ki nga xamante ne moom moo di Adji Sarr gis nañ tamit coow li nga xamante ne yu xooy noonu def ki nga xamante ne moom moo di Gabriel kan li nga xamante ne génnoon na fii daat ne moom xamul Adji Sarr te musul gisee moom malheureusement gis nañ ko moo ànd ak Adji di ko accompagner di ko jàppale gis nañ tamit ay nit yoo xamante ne nii euh, yoroon nañ ay pancarte di jàppale ki nga xamante ne moom moo di Adji di wax sujet au procès Adji Sarr ñu gis euh, benn mm, confiance boo xamante ne ci kanamam mu génn ne je suis au procès kon Adji Sarr gis nañ ne confiance am na ko te jàpp nañ ne ñeme na fi mu jëm ñi nga xamante ne nag moom moo si des nañu bàyyi li nga xamante ne moo di justice mu def liggéeyam bu ko defee ñu daal di clasher dossier bi kenn ku ci nekk seet seeti leneen te dafa jot nag que ñu daal di clasher li nga xamante ne moom moo di dossier Sonko ak Adji Sarr parce que coow li bëri na un an quatorze personnes dee ci te quatorze personnes yooyu ba léegi kenn lijjantiwul ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ci faatu kenn jéemul xool kan moo leen rey kan moo kenn jéemul xool kan mooy responsabilité li gën a am importance mooy quatorze personnes yooyu waruñ ci woon dee te dee nañ ci te kenn lijjantiwu ko te dañ ko waroon lijjanti Adji saar nag am na confiance Ndeye Khady Ndiaye jàkkaarloo nag Adji Sarr Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye nee na Adji Sarr mii mu gis du Adji Sarr moom xamoon ay Samba Abidjan la dajeeloon loolu nag mu nekk loo xamante ne nii bett nañu bëree bëri parce que Adji Sarr dañ daan gis daf daan muuru ah, du génn lu bëri daawul bu daan wax sax ci première interview bi nga xamante ne defoon na ko dafa sëgg kenn nangul xool nit ñi bu baax tey bu génnee devant le public jàkkaarloog presse bi ne susi au procès am na fu mu jàpp fu dëgër nañu bàyyi justice mu def liggéeyam bu ko defee coow li daal di jeex ñi nga xamante ne nag ñi ngi classe Adji Sarr naan euh, simis de nii la soloon nañu bàyyi loolu Adji Sarr robe bu seer la sol parce que robe bi vingt cinq mille lay jar ñun xam nañ si dara xam nañ ne robe bi robe turki la robe bu seer la nañu bàyyi classe yi kaaw capitaine Touré

loolu mooy li nga xamante nii mooy li war a am capitaine Touré nag bu ñu xoolee kaam démb biñ ko daxee gars yi gis nañ ne dajaleel nañ ko vingt cinq millions kon lii day wane na Sénégal ndóol amu fi bu ñu jàppalantee ndóol waru fi am parce que lii nii mooy wane na ñun bu ñu jàppalantee ñun ci suñu biir kenn ku ci nekk war nga mën a doon dara mais dañu jàppalante il faut ñu jàppalante dimbalante yërëmante ah, kenn ku ci nekk ñu yéene la bàyyi kenn ku ci nekk mu def liggéeyam loolu buñ ko defee jàpp naa ne Sénégal ndool dina fi jógee parce que dama xam ne ay ay ay ay at ngay liggéey mënu am vingt mille benn jour benn jour ñu dajaleel la 25 millions loolu jàpp naa ne kon bu doon def chaque jour ñu dajaleel kenn kon ndóol dina fi jóge fii ci Sénégal nañu jàppalante yërëmante en peace and love guys continue di abonné ci seen YouTube ja américain